man Fatim Gueye laa tudd surveillante au ah, lycée Malick Sy à a retraite ñu xamante ci mère Teresa waaw. bi daal li ma ci duggee xëy naa suba di dem Dakar waa koñ bi ki seen bopp ñoo ma ne ma terrain bi daa na ñaari groupe bona yu taxaw ñu jox ma ne leen ban terrain ñu ne extension. ah ma ne leen terrain ba moomu ko ndax da ngeen ne la mu ne ma jox nañ ko ñaari ba ñu ngi tóor béton ak suuf ma leen yàlla doon seen ma dem Dakar jox ko samay papiers dem naa ca préfet du préfet bii de préfet bi mu remplacé laa dem jox ko ko mu ne ma jàkk ne ma yow yaakaar naa terrain bi moomatoo ko ma ne ko ndax lan mu ne ma ndax ki fi kii di génn nii sama bureau papier leer la yor ma ne ko man papier yi ma yor gën a leer papier préfet ndax man président de la république moo ko jox président bi daal mu ngi dund. terrain bi Abdou Diouf en 1981 laa ko xam ca Ndar su ma jëkkër doon inspecteur régional mu ñëw fa mu defal ko discours discours ba mu ko defal xolam ci seetlu ko ba mu ko. ku ñuy wax ngañ jéey ak ñaala jo am ñoo ma boole ak ak ak président président recevoir na ma ñaari yoon benn yoon bi maag moom la woon benn yoon ak suma ñaari collègue yu nekk li semence yi ñu ngi dund ma dégg ñu dem seeti ko mu boole maag Ousmane Tanor Dieng ma lu doon sa problème de ko wax Tanor Dieng mu di ko lijjanti te ma mu di ko leetal ne ko dama soxla terrain ndax dama bëggoon def éducation scolaire ndax suma jëkkër instructeur man jàngale kat laa dama bëggoon a bu ma retraité am suma yëfi bopp yoo xam ne mun naa koy utiliser mu bind leetal dama boole naa la ak Ousmane Tanor Dieng Ousmane Tanor Dieng bind ma lettre ne jox ma ko bind lettre gouverneur jox ko ma toog fii gouverneur oo ma ku ñuy wax Soumaré moo ma téléphoné ku ñuy wax Soumaré moo oo téléphoné ma kaay wu gouverneur ma ñëw gouverneur ma jot naa sa lettre boo xam ne président moo la ko yónnee nee nañ la jox terrain waaye man dañ ma affecté damay dem Dakar mais je en rapport avec mon préfet ma ne ko baax na ma toog toog toog ba yàgg. ma dem na jabulaa waaw ja euh, euh, euh, préfet yow danañ ma boole yow te kayit gi yàgg na mu ne ma kat dama doon xaar kii compétence gi mais saa yu ma leen convoqué du ma leen gis ma ne ko léegi nu may def mu ne ma demal ma toog ba benn bés jabulaa oo ma secrétaire am ma woon ma kaay bi préfet ma ñëw mu jox ma mu jox ma permis d' occupation ne ma nag jàll sa permis en attendant ma au les services techniques bi ñu laata def loolu bind nañ eh, bind nañ eh, urbanisme Sali Ndong répondre favorable ñu bind maire maire répondre favorable ma jël sumay bagage dem jël suma dem see pour commencer liggéey sama liggéey léegi fu ma déposé papier yi ñu ne ma dañuy jox acte définitif bi pour na mun laa lebal xaalis banque islamique bu jidda bëgg maa jox 50 millions pour ma liggéey ñu ne ma waaye naa leen jox bi ma dox keen doxa doxa doxa dox ba sonn ma xëy suba jéngu dem jël sama béton ak sama suuf ma jóge fa dem ca police waa police ànd ak man dem ne leen waaye yéen lu tax ngeen sànni bi xeer ñu ne ko fii espace vert la ma ne ko ku leen ko wax ñu ne ma banda may banda may ngi may dégg deewul maa ngi dudd ma ne aha mu ne waa man da di ñëw toog na man suuf fii ma dëkk rek 700 mètres carrés la xëccoowuma suuf léegi ma toog a toog a toog a toog bu benn bés ma xëy feebar di dem hôpital ñu appelé ma appel anonyme ma ne ku ma woo kan la mu ne ma mère Teresa ma ne naam yow de xam nga ma doom lan la mu ne ma sa terrain bi ñaari góor a bon a jóor nañ fi suuf ah jóor suuf ndax lan mu ne ma dañ leen ko jox ma ne ko baax ma xëy suuf ba ma delsee ma dem ca gouverneur jox suma document yi dem ca préfet jox ko préfet ci boppam du préfet bii de préfet bii xale bu jub la xale bu baax la xale bu xam luwaa la xale bu jàng la ca ENAM ma dem ca moom jox ko mu taxaw jogre ree dana ma ne yow de maire ma ne ko ah mu ne ma yéex ngaa ñëw ndax kii di génne kër gi ma ne ko ah mu ma jox nañ ko ko ndax papier yu leer la yore ndax am na sax baay bu ñu ko defal ca Ndakaaru ma ne ko ah xanaa baay ñaar lay doon man déposé naa baay en 2012 sax maguma réponse ah kii da am na baay ma ne ko kon baax na ma yow toog jàpp sama jàpp léegi nag ñooñu ay gros bonnet lañ am nañ xaalis waaye man aw ma xaalis man terrain bi nañ jël ma jàpp ci yàlla waaye nag terrain bi maa ngi leen di waxal ñëpp ngeen dégg ma jibi si yoon am newu ci Pascal moo yore woon terrain bi Pascal moom la ma Cheikh Ba directeur directeur des impôts et domaines xale bu baax boo xam ne bëggul dara ci alali addina bu jub yàlla ko yàlla may teraanga yoo xam ne ñëpp dañ koy dégg mu boole maag moom ma ñëw ba ma ñëwee li ma njëkk a foo mu ne foo xamee Cheikh Ba ma ne ko xanaa ma xamu ca prytanée militaire ma ne ko ma am concours général Sénégal di ko mam ma ne ko ma nekk ca la suma jëkkër doon fa inspecteur ma ne ko Cheikh Ba di sama doom ma ne ko Cheikh Ba ma yebal ci yow ma jël kayit yi daal di ko ko jox mu liir ko ba ca yàgg mu daal di oo jaañ na ko jaañ xam nga fi terrain bi ne jaañ na ko xam naa terrain bi fi mu ne mu ne ma ne ko ah ba kañ nag mu ne waa ah la woo o ma de ma ne jaw ma ca moom ma toog jàpp sama njaamur ba xëy suba ñu ne ma terrain bi joxe nañ ko eh, kii mu tati euh, maire yi nord xam na terrain bi maak Abdou Yoro Ndiaye ñoo fa ànd Abdou Yoro Ndiaye ne ko maîtresse mi xam ngeen ko moo leen si royee lycée barke de moo Ndiaye ba nga ñëwee lycée di leen may moo ko réceptionné mu ne ko te bi yàgg na jëbal leen ci fula mu ne dama jox ko ku ñuy wax ci bu ma ne ko baax dama jox ko ku ba sànq ba biig bay keroog ba ma ko wooyee ne waaw yow sow sow man ne dama dégg ne suma terrain ba dañ koo joxe mu ne ma terrain ban maa ko ah suma terrain bul trois extension bi dañ koo joxe mu ne dangay laaj am da bëgg loo xam ma ne ko lu ci yàlla baax na dale toog jàpp suma njàmm terrain bi nag buñ ko joxee ab euh, buñ ko joxee kuñ ko mën a jox terrain bi maa ko moom xëccoowu ma nag terrain xëccoowu ma terrain waaye kii ñuy wax àll kii nu mu kii ñuy wax jibi euh, si kii ñuy wax euh, kii nu mu tudd xale bi xale bi waaye denee ba denee ba ba denee ba sàll ki ñuy wax si ak soem merewuma leen benn yoon ndax def nañ ci kam ci laay kattan dem nañ ci ba jibi si na ma demal nga toog bu ñu lotti si waat naa la dëggal terrain bu day nii jox la di dalal sama xel merewu ma ko de ndax de deful dara ci terrain bi man xam naa ñu def ci terrain bi. léegi nag lan mooy doon nekk sa taxawaay. sama taxawaay mooy puisque ñoom jël nañ terrain bi te man du ma xëccoo terrain man fii ma dëkk doy na ma sëkk nañ ma jox terrain. nañ ma jox terrain ndax man tam dama a liggéey ndax dama yor njaboot waaye moom terrain bi suur naa ko kël coow la bëri na ñoom goro bone lañ man aw ma dara naa jàpp ci yàlla nañ jël terrain bi ñu bàyyee ma yàlla waaye ñoom ñi nga xam ne ñooy service compétent yi ba nag sikkuma ko sikkuma jibi si sikkuma Malick si sikkuma préfet bu bees bii fi ne sikkuma ko de gouverneur la même chose terrain bi ñu ko joxe xam naa ko xam naa fi nañ liñ ci dugalante xam naa liñ ci génnal ndax nit ñi dañuy def akkat yi wax waaye terrain bi moom xam naa lépp li nekk ci terrain bi xam naa lépp lépp lépp xaalis bi ki dugg ak lépp xam naa ko waaye loolu jarul ma di ko wax ndax mag laa waaye nag man fi mu ne nii man xam ma ñu may waxal ñi xam ne ñoo taxawal fii réew mi ñu taxawal fii réew mi ndax tey ji bu ma neexoon terrain bi dina dépassé fii ndax Macky Sall keroog ba muy ba muy jël serif dana jeune protégé personne loolu la ma ki waxoon te loolu la nekk ba tey su ma neexoon tey mu dépassé fi waaye jomb naa ko yow gis nga sama kër gi 700 mètres carrés ma ko fi dëkk waaye nag xam nga lu ma bëgg ñoom buñu ma tooñ ñaari yoon puisque ñoom si am na ay goro bone ñoo xam ne xëy na ñoom ñoo koy yelloo man yelloowu ma ko nañ ma jox terrain bu toll ni sama terrain loolu rek laa leen laaj xanaa loolu am naa ci droit loolu rek laaj ndax tere bi moom par ndax ba ma ko wax mun na tere ba boo ko jëlee dootoo ci dëkk di nga dee maaga kii man dee gi yàlla tere man suma njaboot gi li ñu am doy na ma sëkk terrain bi boo ko jëlee di nga feebar ma ne feebar du ma ca fekk nañ jël terrain bi waaye nañ ma jox sama terrain te nag ñu xam ne terrain bi moomuñu ko ku ñuy wax Fatim Gueye moom terrain bi doole leen ko may doole moo leen ko may nañ jël